rafetlukaay bi ñu def loolu bon jug ci tax mu gàmmu ñaan ci tamit aussi yàlla def ci moom sax. d' accord mais am ngi nit ku yàlla may tur euh, nan la war a comporter di éviter yu mel nii parce que am na ci yoo xam tam euh, war na ko ne warul ko ne na waaw loolu la mais tamit aussi lépp loo gis la rek waaw la rek parce que am na loo xam tamit aussi boobu yàlla mooy xam lu tax muy teg jaam bi ay ay natt a mhm. bu baax rek xam nga lépp ñu ngay a sujet si dara quoi bàyyi xel bu baax ci li ngay simple ndax bi nga duggee gis nga ko. waa gisee nañ gis. Ah, ci ban ci ban anam nga ko gisee ci ban la dëgër nga gis tey bi doon ci làmb ji wala ban façon la dëgër gis. waaw dëgër bu ñu gis ak bu conscient bu tranquille dal. jokkoo ngeen ay kàddu. waaw jokkoo moom moom xam na ni moom. nga wala rek waaw mm-hmm. nit bi julli su dee julli sax bu nekk da taw bi na lan ngay tam xale yi nga xam la amal feebi te tamit ñu bari ñu ne masawoo na da ngeen bàyyi xale yi te xale yi di ay ndaw mm-hmm. dajale woon seen i dërëm seen mm-hmm. na moom ay kàddu yu jox xale tamit loolu antuwul lan nga leen di wax tam ñoom waaw loolu loolu moo xamul du ma ci mën sax mais di di di masawoo rek waaw nga xam ne tamit moom bon nit dina jaam ak xam ne ñëpp ay Sénégal moom jombul kenn am aussi waaw. waaw loolu moom ñu koy rafetlu trop trop trop Sadio moom bon xam nañ tamit aussi que ci lépp lu mu am mu néew ba da koy dugal ci jumaa yi. xam nit bu nit bu. buy partagé nit bu bu jël alal di ko bokkoon ñëpp la quoi. ñu ngi koy rafetlu trop ñun axlu làmb yëpp ñun mbër mhm. ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal tamit aussi. baax a baax yàlla may ko wér di yokk ko jàmm moom ku bëgg Sénégal la kuy dund Sénégal la saa d' accord baax la baax a baax a baax bi nekk doomu Kaasas tamit association bi association bi hmm? waaw loolu ñu ci waxtaan incha allah ñu ci waxtaan ñu ci déggante président bi Gris Bordeaux hmm. xamaa dinañu xool lu mu gën a rafetee gën a gaaw rek ñu si def leneen li ma ci sof mooy sa supporter ñaari doon wérante ci yow ak faat am ci lépp jëmm donte yàllaay dogal tam di nga yëgee loolu en tant que monsieur. waaw bu ñu koy yëgee nag yàggul mais maa ngi nii fa laay jëm. Mhm. waaw fa laay jëm nii fa dem jaar mhm. mhm. euh, tamit si biir yëpp xam ak doom papa doom jëkkër ak jabar. yàlla gën a musal si seytaane. di wax tamit kilifa diine yi fi nekk. ak sëriñ ci fi nekk nañ gën a ñaanal Sénégal parce que gis nañ ni Sénégal léegi. tàng na trop waaw tàng na trop. waaw lii lépp nag xam nga ku dem ba sa rakk bi nga bokkal jàppante moom ci li nga xam ne tamit mooy sport la ba ndogal yëpp am ci bon duñ def duñ. ñaan yàlla mosuñ seytaan ñaan yàlla mosuñ seytaan d'accord pël bu ne di ko di ko di ko di ko métti du naka vraiment pël dugal de question ne ndax bi nga gisee ne am ngeen yaakaar tey da nga ñibbi këram incha allah incha allah parce que Sénégal ci yërmande rek la ñuy dox Sénégal fii ñëpp bokk ndey bokk baay ñëpp ay mbokk lañ waaw ñëpp ay mbokk lañ te ñëpp benn lañ am nañ ci yaakaar bu baax ne lépp dina sedd incha allah su dawal jaale ci jaake jërëjëf ñu ngi noonu mbokk xarit yi Eumeu Sène moo ñëw nemmeeku ki nga xamante ni moom mooy euh, Lac de Guiers donc ngeen am ko en direct euh, si seen plateforme di euh, Web Info TV wooy leen di abonné di like kon donc gis ngeen Eumeu Sène ñëw na gis nga mi ngi noonu di saafantoog xale yi donc mu doon loo xamante ni lu rafet la mbokk yi ma Sène ngi noonu di dugg Eumeu Sène ngi noonu ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers mbokk yi xarit yi donc mu doon image boo xamante ne rafet la xarit yeeg sëpp yi ñëpp ñëw nañ taxaw donc nag euh, ñëpp a ngi koy euh, félicité bu baax si geste noble bi nga xamante ne def na ko donc euh, mi ngi saafante ak yi ak xarit yi fi nga xamante moom mooy tribunal bu géejawaay fa la yëf yi xewee mbokk yi ñuy seetaan donc woy leen di euh, abonné di continuer di like li nga xamante ni moom mooy direct bi donc euh, ma seen ngi noonu ngi noonu di photo ak soppe yi donc fii si tribunal bu Dakar bu bu Géejawaay donc ñu dellu fàttali leen nii que ni euh, Lac de Guiers euh, moo nekk fi nga xamante mooy si biir tribunal bi ginnaaw ñetti fan ak léegi léegi euh, ñetti fan ak léegi kenn xamagum ndax ndax dana génn wala du génn waaye en tout cas képp koo xamante ne bokk nga si làmb ñëpp ñu ngi ñëw di soutenir seen frère di Lac de Guiers donc Eumeu Sène moo ñëw donc mi ngi doon di dugg si otom ngir dem ak subaak léegi mi ngi fi Euh, subaak léegi mi ngi fi ndeysaan mi ngi nii loolu rafet mi ngi nii ndeysaan waaw mi ngi noonu di photo donc nag ñëpp seen aussi Sa Touba waaw Sa Touba seen mi ngi noonu taxaw Sa Touba xam Sa Touba xaman ko ki nga xamante ni Euh, moom mooy euh, euh, Modou Xarañ loo donc saa baa ngi noonu aussi taxaw fi nga xamante ne moom mooy tribunal tribunal bu Géejawaay mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan fii si seen plateforme bi Web Info TV la wéy leen abonné daal di di continuer di projet bi alors ama seen yëg na si otom mu ngi noonu yëg na si otom mi ngi noonu di dem donc ñëw na ba gisante ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers donc gis nañ gisante nag Lac de Guiers yëkkati na ay kàddu am nañ yaakaar kenn Lac de Guiers sore euh, euh, euh, ñoom am nañ yaakaar que ni dina génn waaye lu mu si mënti doon gars yaa ngi ñëw soppe yaa ngi ñëw xarit am di jàmm yi ñëpp a ngi ñëw fi nga xamante ni moom mooy tribunal bu bu bu bu bu ñu dellu fàtt leen ni tribunal baa ngi nii gis léegi nag waa web info ñu ngi fi donc saa Touba ngi noonu saa Touba Euh, Sa Touba ngi noonu taxaw ñu gis mi ngi saafante ñëw na ngir soutenir ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, la daggee donc mu doon image boo xamante ni image bu rafet la Sa ngi noonu taxaw yéen a koy taxaw ki nga xamante ni moom mooy tribunal ki nga xamante bu Dakar donc seen ngi noonu di dem ama seen a ngi noonu di dem mbokk yi ama seen a ngi noonu di dem donc euh, xarit yi ñëpp a ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw waa donc euh, mbir yi noonu la demee ñu ngi noonu di dem émission ñu ngi noonu di dem suba ak léegi.